xale yi dañoo wormalatul sëriñ si mën a leen déedéet xale boo gis muy marchand ambulant di korkoral lu ko gën a neex lu gën a nekk mbégteem mooy la muy korkoral asuk néew bés bu mel nii muy bésu màggal ak bu mënta doon mu yëkkëti la mu am jox ko sëriñam àddiya te kuy def loolu foog naa ne fonk nga sa sëriñ kon tey jii la gën a wér xër gi ci sëriñ ci tey jii la gën a wér kon loolu bu amee buñ demee ba ci réew mi njàqare am xel yépp jaxasoo sunu xel daj lu dul suñuy sëriñ ndaxte dañoo jàpp na ñooñu bu ñu yëkkatee seen kàddu ak dayo bi seen kàddu am bu ñu waxee ak lu mënta doon jàmm dellu ci réew mi dal dellusiwaat ci réew mi moo tax bu coow amee wareef la ci képp kuy taalibe ñu ne a ah, sëriñ bi déggagun ko sëriñ bi na wax te ay firnde bëri na ci mars 2021 bu nekkutoo nag suñu maam sëriñ Muntaxa Bachir Mbàkke waay waaye xam nga ne réew mi kenn dootu ko waxati kon suñu demee ba nga xam ne réew mi mi ngi am ay bakkan yu fiy rot ci lim mu bari lool mu am ay xale yoo xam ne ni ngi leen tëj ci biir kaso bi ñu bari lool dañuy am yaakaar ne ñoom bu ñu waxee ñi nga xam ne yàlla defu lu dul dénk réew mi te ñoom li ñu yor ilaa yow mi diine tànk jógewuñ fi yàlla na yéex ah du dañ ñooñu war nañoo am sañ wëlbatiku jàkkaarloog ñi nga xam ne ay kilifa zaayir lañ wax ak ñoom ci biir néeg benn yoon ñaari yoon buñ dëgëree bopp ñu génn ca pénc ma ne wax nant ak ñoom nag ñoom ñoo ormalul sëriñ si ñoom ñoo respectéwul sëriñ si bërki démboo njaay dégg nañ ne Ousmane Sonko mu ngi ci fanweeri fan ak lu teg ba sëñ Muntaxa yónnee ci moom ndigal li da koo jëfe mars 2021 ba sëñ Muntaxa yónnee ci m ne lépp loo leen bëggoon def ci yëngu-yëngu dakkal leen ko dañ koo jëfe wëlbatiku jàkkaarloog président makisal Sall jox ko lan la opposition bi sàkku defe naa ci wetu Macky la gën a métteetee ndax lépp luñ ko ñaanoon dafa gën a tar ci askanu Sénégal te nag mu neex mu naqadi lañuy ñuy korkoraan di ko yóbbu ci àddiya jafe naa am jamono yii ndax réew mi métti na lool jàmm jafe fi lool te nag ñoom ñu ngi fàtte yàlla bay teg seeni pexe kon sëriñ si ñu dellusiwaat leen jéggalu leen bu baax a baax a baax ne nag bu ñu demee bay wax yenn wax yi du lenn lu dul am yaakaar gu foor ci yéen te jàpp ne yaakaar googu du mas tas du mas a tas loolu rekk moo tax ngay gis xale yuy mer seeni sët di mer ak leneen ak leneen mais du ñàkk worma du ñàkk sutura ñi nga xam ne danga leen di digal du def ñoom ñooy utiliser loolu pour lan yàq der sikkal ay nit waaye yéen yàlla may na leen ngeen xam kan mooy kan ngeen xam bu baax a baax kan mooy kan da ngeen dul baaxoo wax nag waaye képp kuy dox ci réew mi xam ngeen ko bu baax a baax ndax seen ëtt yooyu yéena ëpp information ak ay renseignement ci réew mi nu muy doxee ak ku nekk na mu mel loolu dama ko doon ubbee rek màggal nañ ci jàmm dellu ci jàmm dara xewu fa lu dul coowul assainissement ba wax nañ ne def nañ fa quarante cinq milliards gis ngeen Touba na mu mel gërëm nañ président Macky sàll ca lam fa def waaye gis ngeen Touba na mu mel kon mu nekk problème boo xam ne war nañ ci am taxawaay bu mat sëkk ndax sooy xool Touba mooy deuxième ville du Sénégal kon lépp loo xam ne yittewoo na ko gouvernement da cee war a taxaw ba mu mat sëkk ginnaaw si loolu ma dellusi ci mbiru Ousmane Sonko jamono yii ñi ngi nekk ci teg ay plan ak ay stratégie xam ngeen ne fi nekk nii ci yoon ci dëgg lii nga xam ne mooy procès aji saar bi Ismaïla Madior Fall langaamu na condamnation définitive la ci am moom ci boppam xam na ne du dëgg yónni nañ ko nag mu dem ba Jeune Afrique na condamnation définitive la am muy deux ans yi te ñoom ci seen décision de justice ñoo ne dañoo condamné kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko par contumence maanaam gisuñu ko ba ñuy àtte mbir mi te ca booba ñoom ña nga barricade Ousmane Sonko cinquante cinq jours biir këram wëlbatiku na gisuñu ko ci yoon. bu ñu jàppee Ousmane Sonko procès boobu dafa war a nul mais dama leen bëgg a wax lan mooy seen stratégie bu bees bi nga xam ne moom lañ xelal président Macky Sall fi mu nekk nii dañuy langaamu ci li nga xam ne moo di condamnation boobu boobule moo tax Ismaïla Madior Fall jéggi fi ñëpp dem Jeune Afrique di dëggal. condamnation wu procès aji saar na condamnation définitive la lu tax nag mu wax loolu jamono yi stratégie bi ni lal moo di dañoo bëgg li jox ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko liberté provisoire ak lu mënta doon bàyyi ko mu ñibbi ci njabootam résidence surveillée liberté provisoire ak mu mënta doon ci dossier bu bees bi nga xam ne moom lañu ubbi atteinte à la sûreté de l'État appel à l'insurrection yooyu nga xam ne moom bañ ko jàppee jiiñ ko volu portable le procureur jël porox ndollu jaare fa yokk fa loolu yépp ba Ismaïla Madior Fall di wax dossier bu bees la waaye dossier Adji Sarr kondaane nañ ko ci définitivement léegi buñ ko libéré ci li nga xam ne moo di dossier bu mujj bii ñu def ko mandat de dépôt muy atteinte sûreté de l'État ak loolu bëgg nañ ko cee jox liberté provisoire xawma nuñ koy tuddee ñoom mais daal bàyyi ko mu ñibbi këram même buñ koy def résidence surveillée mais président Macky day gaawtu ne ci procès aji saar defal naa ko ci grâce ne loolu yëpp bu ko defee ngir jàmm la bëgg ci réew mi maanaam dañuy wax ne gracier nañ ko ci procès Adji Sarr bi bii jox nañ ko ci liberté provisoire mu dem këram léegi nag ci loolu buñ ko gracier comme tëddul deux ans te pour nga mën a am li nga xam ne moo di grâce te mën a bokkaat ci élection day fekk app bi jeex app bi nga war a tëdd jeex tàkk nga mën a bokkaat ci ñu sukkandiku ci loolu ne Ousmane Sonko tëddul deux ans yooyu mais Macky Sall moo bëggoon jàmm moo tax mu bàyyi ko gracier ko bii ci liberté provisoire la nekk kon du mën a bokk ci ay élection pexe boobu la ñuy lal fi mu nekk nii stratégie boobu la ñuy lal moo tax ñuy gaawtu di wax ne condamnation bi c'est définitive maanaam bugguñu may Ousmane Sonko fu muy constitué wu prisonnier ndax soo leen xoolee jour biñ ko jàppee garde à vue la def ak acquiescement bind ko ne comme jàpp ngeen ma garde à vue jàpp leen ne la ngeen dogaloon ci procès Adji Sarr nul na nañ àttewaat procès bi mais ñoom bëgguñu àttewaat procès bi ndax bu ñu ubbee procès bi mën nañ dem fii ba février deux mille vingt quatre procès bi du jeex Ousmane Sonko mën a am possibilité nekk candidat léegi nag njublan googu ñu bëgg a dugal mooy lan dañoo bëgg ne léegi la condamnation et définitive mais président sax da ko ci may grâce loolu yëpp pour indi jàmm ci réew mi mais comme tëddul deux ans yi te loolu la charte bi wax loolu mooy tax kii di Ousmane Sonko mënul doon candidat ci élection présidentielle deux mille vingt quatre fan yii loolu la xelal président de la république ay avocat wu Sonko nag xam naa ne yëgagun sax lu ñu mel président mi ngi koy waxtaanee ak i nit. ñu ngi koy waxtaanee ñoom seen biir looloo indi Ismaïla Madior Fall dem Jeune Afrique di xataraayu di wax ne la condamnation est définitive ñuy togg nag liberté provisoire ci dossier bu bees bi ak grâce présidentielle ne jàmm la bëgg ci réew mi ginnaaw ba ko kilifa diine yi ñaanee mais loolu yépp luñ ci jublu moo di ay pexe ba Ousmane Sonko du mën a doon candidat deux mille vingt quatre seeni pexe la nag foofu laa bëgg a taxaw waxtaan ak njiitu réew mi président Macky Sall dinga déggati nag ñi nga xam amuñu dégg-dégg ak fa may waxee ñu ne président. Pape Alé da ko doon ñaan du ñaan de man Macky sàll ba ma dalaloon 31 décembre 2011 may ko plateau ak lépp lu ma mën a defit même Macky sàll boobu laay xool yéene ko jàmm donte ñaaw téef bu ne def na ma ko moom ak soxnaam waaye nag nit tolluwaay la président buñ la dugal ci ay stratégie ak ay plan ñépp ñi la ciy dugal seen boppu kese dong rekk moo tax ñuy wax te firnde laa la ciy jox am na ñoo xam ne tekkiwuñ woon dara te buñ jaarutoon sa loxo naruñu woon tekki dara ci réew mi 2012 ba nga doonee président ba léegi yaa tax ñu tekki dara preuve buy wane ne loolu sax fàtte nañ ko mooy danga ne nekkatoo candidat rek nga gis ba yëpp tëb ku ne foog ne mën na doon président de la république Sénégal kon boo xoolee ci loolu rekk war ngaa xam ne ñii du nit ñoo xam ne sa ëllëg ak sa gannaaw dañ la ko jéem a défendre ñu tekkiwul woon dara foog na réewum Sénégal maanaam tàngal la bu ñuy màcc am na ñoo xam ne nag dañoo doon candidat rek pour xam na lu luubal ci alal ku fi falu fii ci président de la république di leen topp ilaa yow mi diina boo deful ndànk sax ci kaso rëbës la ñuy dee ñuy def ne candidat lañ pour lan pour kiy doon candidat mën a négocier ak ñoom ñoom impunité président boo xoolee ci loolu war ngaa xam bu baax a baax a baax a baax ràññee tamit bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ne ñi lay waxal ñi ñëpp kenn gëmula ci te balaa nga koo xam nga désigner candidat bi nga désigné fi mu nekk nii sax am na ñu lay diir mbagg di wax mu neex la mu naqadi la ñoom candidat la ñuy doon maanaam sa kilifteef tax ñu ngi koy doyadil kon nga war a xippi say bët xool te jàngal nga sénégalais yi lu baree bari si nit ñi de war nga sénégalais yi ñi nga xam ne gëmuñu dara yow war nga koo xam gëmuñu dara leen defloo ñu def li ma paa bi waxoon bu la defee mandat de dépôt bu mu la métti parce que am na ñoo xam ne boo leen waxoon sulli leen seeni waajur yu dee nga def leen mandat de dépôt sax ngir lu neex président de la république ñu def ko kon président war nga xoolaat ne fi mu nekk ne ay stratégie jaru ko ay pexe jaru ko demal ba nga xam lii dëgg gi mooy lan moo di man nee naa dootuma doon candidat ngir ma wàccoog sénégalais yi ba mu jeex tàkk am way wu rafet sàkk ko boog moo di damay organiser ay élection dama sonn ci coow lii coow li war nga cee sonn xoolal chaque jour ministre boo ëpp buy wax ñaari ministre la ministre de l'intérieur ministre de la justice sa ay yëpp ministre yi ci gën a ràññee ministre de la justice la ak ministre de l'intérieur ci lay procès sa ay liñ ci gën a ràññee justice la sa ay liñ ci gën a ràññee prison la terme yi gën a ràññee sa ay mandat de dépôt retour de parquet ah euh, terrorisme euh, commando force occulte force obscure loolu rek lañu gën ràññee si sa ay boo demee ba muy jeex nag la ci des ak néew rafetal ko tuuti nga taxaw nga ne leen eh, ku nekk wóolu nga sa bopp yow sa biir kan sax ku nekk wóolu na boppam parce que bu ñu demee ba ñu douze candidats la am ku nekk nag xanaa war ngaa yaakaar ne yow am nga loo tekki ci réew mi ba war a gañe comme dem na ba sa biir kan am nga douze candidats nga ne leen léegi wax ji sax day jeex na ñëpp nekk candidat nga bàyyi ñëpp ñu nekk candidat parce que foo mënee bàyyi ñoo xam ne dañ leen jiiñ alalu réew mi man faa bàyyi ñeneen te xam nga ne sa àqulaay taala dossier aji saar bi jot nga rapport gendarmerie bula wax balaa procès bi ne lii du dara lii preuve bi mooy ba ñu demee ca procès ba waxuñu fa menace de mort waxuñu fa viol sorcellerie juridique le juge ba génne kon nag bu ñu demee ba tollu foofu président wareef la ci yow te ñun lu ñuy wax lu dëgg la ci ñun lu sincère la ci ñun mooy nga taxaw nga ne wax ji dama bëgg léegi sax mu jeex comme yéen amuleen ngoru toog yéen ñi nekk sama njaboot ku nekk moo may diir mbagg di wax man nga war a tànn léegi wax ji na jeex askanu Sénégal laa ko séq ak ñépp lay bàyyi ñu doon candidat ci élection présidentielle ku mën sa moroom duma mu jeex tàkk ma xam ne askanu senegal bi ma tànnoon 2012 ci fulla ci fayda daj ci lu ne nag pour ma mën a doon président de la république damay delloo njukkal askanu senegal boobu boobule ci ban anam moo di bàyyi leen ñoom seen bopp ñu tànn ki ñu bëgg mu jiite leen di ñaan yàlla suñu kàddu yàlla na leen fekk ci jàmm di ñaan yàlla màggal gi ñu dëgmal di 18 safar bu cheikh ahmadul qadim dama waxoon ne ñëw leen santale ma yàlla te tukkeem ba mu defoon ñu ñaan yàlla képp koo xamante ne bi yaa ci yoon yàlla na yàlla teg la ci yoonu jàmm yàlla defal la kàttan ak man-man bi jaay seydina muhammad ci barke cheikhul qadim radiallahu anhu mbokki taalibe di leen jégluwaat nag ci vidéo bi ñuy def tey wax ji du neex ci kenn koo xamante ne bi yaakaar naa ni gis ngeen génn bi mu génne ci doomi maam Abdul Aziz Dabbaax boobu nga xamante ni ñi ngi wax sëriñ Habib si sëriñ Habib si Dabbaax di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kàttanal la yàlla na yàlla may la wér yàlla na yàlla defal la jàmm sa baay xaaja Abdul Aziz si Dabbaax bu del suwaatoon jamono doo defar sa toogaay ku si maam Seydul Xaaji Maalik si radiyallahu anhu kon dafa am loo xamante ne bii dañ koo war a baxel suñu kilifa yi kenn nag moo xam ne moom laa si cité muy saay-saay boobu nga xamante ne bii maanaam pédophilie la koo xamante ne bii xaj bu ràmm la muy xaj la doomu fasan mbaam la parce que nit ki fa nga juddoo rek noonu ngay réagir ñaareel bi ci des nag bala maa sori dama koy wax ne ko moom bu dee woon tey kenn du ko jullee kenn du ko suul ci armée lu jullit parce que ku ku yées la muy Tanzania koo xamante ne bii maanaam yow sa bopp da ngay juutu joxe sa ginnaaw say moroomu góor nga toog di wax ak kilifa goo xamante ne bii maamam liggéeyal na ko baayam liggéeyal na ko muy xaaja Abdou Aziz Sy Dabakh yal na yàlla yokki leer yow an say maam lu ñu fi def an say baay luñ fi def nit ki nag la ngay waxal nit rek moom nga juddoo moom yow dañoo war dañoo war a xool yow sa sa sa sa emploi du temps wala yow sa palmarès dans ce ni nga mel àddina xam nañ ko télé boo dem ñu dàq la ngir lan ngir tiisante ngir góoru wat bang bi nga doon ngir ku la wax boo xëyee suba jéebaane ko te li ngay wax yëpp dara lu ci dëgg fenn yi ngay bax fenn yi sax mën nañ ko mën naa ko baale waaye lu toll ni sëriñ Habib si nga xamante ne bii heure bu waxee am lu mu teg ci loxo sénégalais yi nga naan ko ay mando wala li nga wax mun naa mën ak yàlla ba yàlla jégal ci kàddu gi may wax waaye temps dañoo xamante ne bii dama la wax ma ni la borom ñaari tur yi yow yaa yées ci ñoom parce que ku toll ni Ouzin Keita ak ñeneen ñi nga xamante ni bii mu dem ba mujj gi yow ci sa bopp nga war a takk jabar am soxna am na nag mën am na ci jëw jigéen yoo xam ne dañu takk jabar rek pour kamu camoufler seeni seeni seeni image waaye tangas bu dee xamadi ngay jaay wala réew wala fit wala nga am foo wéeru fu ñu wéeru ci yàlla la ñu kenn du laal suñu kilifa yi ñu lay bax kenn du laal ku toll ni Serigne Habib si doom moom Abdoulaye si da baax nga xamante ni bi yaakaar naa ni yoonam dafa leer nañ yow nag sa lu yoon yëpp ay xaaxam la yow mbaam sëf saxal la tane xam nga mbaam sëf tey ji na muy juré wala na muy jëfandikoo yow moom moo la tane kon da nga war a xool sa bopp te xam ne ñun dawuñu ci boo waxee benn ñu génn tontuwaat la parce que da nga réew arrogant bu dee dañ la fay nag xaalis bi bu dee say waajur a ngi jund ak fu ñu mën a nekk lépp loo xamante ni bi fay nañ la ko ngir ngay xas gor wala ngay xas doomi suñu kilifa yi xamal ni ëllëg ku ci lekk feebar doo wér temps tànjaan bu yeboo nga régler sa bopp tele boo dem ñu dàq la ngir lan ngir tiisante tiisante nag ci jigéen lañ ko xamante woon wax ju bon dëkkul fa mu jóge fa mu jóge la cosaanoo dama wax saa su nekk yow est-ce que est-ce que laa la wax yow ci buumu lislaam nga juddoo temps tànjaan parce que ni nga ni nga ni ni nga ni nga mel nag il est temps daal di wax ak yow ci wax ju arrogant il est temps ñu wax ak yow ci wax ju réew wax ju réewande gënoo ñëw xamadi dëkk gënoo ñëw dëkk ci dëkk bi te dinaa la yëgal ñaar waa kër Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu waa kër Ahmad Bamba Xaadim Rasul waa kër Maulana Cheikh Ibrahim Niass ñoom ñëpp mag ñi dañoo amoon alaaqa ak mag ñi ba ku ci nekk bind téere di wax sa sa moroom ci lu baax Tange Tandian yow lan nga def yow ana sa palmarès bu baax yow heure buñ la wootee jigéen woona la ci teesante Ouzin Keita nag ma ngay wër di ko tëdde moom moo gën a pur dafa am loo xamante ne bii da ngay xam sa bopp ci bi muy teel te dinaa la yëgal ñaar woo nga naar ci guuxum soowu comme ko danga woote ci reewande dangaa woote ci xastante dangaa woote ci wax lu bon dinañ la xam ne ci senegal lañ dëkku te xam nañ la bu baax a baax lépp loo wax nag sëriñ Habib si mun naa mën a ko bu dee dañ laa fay ñoom la waaye nag dañu wax ne dëkk bi am na yoon am na justice dañoo wax ne le premier l'ennemi de la nation c'est l'injustice gis nga tey ji yow vidéo bi nga def ci plateau ba heure bi waroon na laa fekk ñu noq la ci kaso bi xamadi nga xamoo sa moroom waaye nag dañ ne xale bu réew mag mu réew ak xale bu réew ñoo mën a def gis nga tons temps tànga tàng na sax laay wax parce que man yow gis nga xaj yooyu nga xamante ni xaju ndoxaan yi nekk ci mbedd mi nga xamante ni bi dañuy dañuy tëddante ba ras yow dangaa joxante ci sa gannaaw gi ba ras bu tayee nga xees bu subaa nga ñuul sa kanam gi mel ni garabu kóon yi tans rek sa bopp rek la sa bopp xam ne ñun boo ci dawul benn duñ ci daw ñaar